salaamaaleykum mbokk auditeurs u réew mi FM dal leen na jàmm seen émission sans filtre jotaay ndaw ñi la fii ci réew mi FM lay amee euh, mercredi bu jot 15h jàpp 16h euh, comme ni ñu koy defee saa su nekk tey euh, mbay Badiane la ñu fi dalal moom nag moo di président du mouvement Sàmm Sa waaye itam conseiller municipal ca mairie bu Kër Massar Sud moom lañu fi dalal fas yéene waxtaanee psychose bi nga xam ni askan bi yeewoo ci waa Kër Massar ci la ñuy nekk. Euh, nawet saay buy ñëw ndax ñi ngi xalaat inondation yi ak yeneen ponk yi nga xam ne moo soxal euh, boobu lee gox euh, mbokk yi donc mbay Badiane ñi am mbégte contenté dalal la fii si suñu plateau sans filtre suñu bàyyi la nga nuyonteeg mbokku déglukatu Rewmi FM. jërëjëf Sylvie ginnaaw bi ñu sukkandiku si yàlla julli sangu sangi sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam di jëfal euh, sunu mag ñu baax ñi di nuyu képp ku nekk si biir réew mi góor jigéen mag ak ndaw. Mm. Euh, di nuyu waa Kër Massar gi ma bàyyi ko rawatina waa ay cité ay 1 di 2 jàpp ay Dakar Marine ak mm. euh, enseignant. Mm. Ah, waaye di nuyu seen auditeurs yi nga xam ni ñu ngi teewlu jamono ji si waxtaan wi ñu nekk. Mm-hmm. am na solo Mbaye yow yaa di président mouvement sàmm sa gox waaye itam conseiller municipal ca mairie bu Kër Massar Sud ñaari casquette nga fi indi. Euh, tey mu mel ni tey ci suba taw na taw na Kër Massa wala tawul. waaw jot nañ jot nañ ci tuuti rek. dafa xiin rek. dafa xiin rek ñu tiit. waaw def ay ngelaw. ay ngelaw mu sotti tuuti rek xel yëpp daal di rëcc. fiit yi dem fit yëpp daal di dem. ndax la. li ko waral mooy dañuy dund lu metti muy ndox ndox dafa nekk ñaari mbir yoo xam jàpp naan ci àdduna si ndox rek nga koy gis boo manqué ndox danga nga jooy ba sonn mm-hmm. soo dëkkee ndox da nga jooy ba sonn kenn munta ñàkk ndox boo dëkkee moom mooy inondation bu amee ba ngay dëkkak ak moom doo mën a togg doo mën a def dara danga nga jooy ba sonn waaye bu ndox amul deux heures temps ndox amul da nga jooy ba sonn euh, fi ñu dëkkee ci Kër Massar Sud mu nekk entre Kër masaar point bii ñuy def ak fi nga xam ne tey jii ñun fa la ñu dëkkee nga xam ne day fees dell depuis cinq ak autopont bi boo ko dee calculer distance bi matul 100 mètres. Mm-hmm. ñu daan dund lu metti ci nawet bi autopont bi nag dikkati kon bu ñu daan dund 10 ak autopont bi dañuy dund 20. lu ko ëpp. baa lu ko ëpp sax rawatina mu amoon benn canalisation bu fa amoon provisoire la ñu ko defaloon. ngir mettit bi ñuy dund. Mhm. fi mu toll nii may wax ak yow à l'heure qu'on parle fa ndox ma daan jaar ci kanaal ba war a dem forêt ba dañ ko éliminer donc kon la ñu daan soulager loolu nekkatu fa kon lañu daan dund diggante deux mille dix huit deux mille dix sept deux mille seize jëm deux mille kon ren jii deux mille vingt deux danañ dund lu ko raw. mais canal yooyu bañ ko dindee defuñu fa dara. Euh, xam nga projet bi am na. Mhm. ña ngay liggéey. ci liggéey boobu ñun fi ci kanaal euh, bi jóge ci terrain enseignant romb lii si ay nomades yi ñëw ba ci jumaay ibaadu yi tourner sa droite jëm Maam Joor à partir de école Maam Joor nga xam ne foofu la daan euh, jël ci canal bu mag bi dem ci foore bi Auchan bi foofu la ñu éliminer mm-hmm. donc léegi ndox mi amatul fu mu dem mm-hmm. canal bi même buñ ko curé même bi ndox mi dee dem bu demee ba àgg foofu day takk donc léegi ndox euh, ndox mi léegi dootu bouger au lieu mu dem ci forêt ba amatu fu mu àgg. donc dañ ko day taxaw benn ba mooy am na si ay caniveau yoo xam ni lu tolloo cinq ba six tey boo dafa fees del del del ak suuf même bu ñu ko curé te fële ibbiwuñu ko ndox dootu dem te ñëpp xam nañ zone boobu mooy centre Kër Massar ndax marché bi gën a mag ci Kër Massar muy marché ay numaadi foofu la nekk donc bu fekkee tey at yi yëpp marché ay numaadi da daan am ndox ah, foofu daan recevoir ndox mi muy dem tey fi mu daan jaar mënatut a dem marché ba lam daan am bu nawet bi jotee bu tawee benn taw ñaari taw Kër Masar kenn dootu dugg baa bu ñu duggoon dañuy jàggeen dañuy jéggaani mhm. euh, loolu casquette président mouvement sàmm sa gox mooy wax mhm. mais tant que conseiller municipal ca mairie ba c'est vrai que ba ngeen toog ak léegi yàggul mais def na plus de cent jours mhm. euh, boo ñuy évaluer li nga xam ne euh, nguur gi jot na ko fa dugal ngir xeex inondation yi lëkkaloog mairie bi fuñ fu fuñ ci toll. waa xam nga fi ma toll nii. bu ma bëggee wax si kasketu conseil municipal lu si nguur gi def. mën naa wax lu ma xamut. ndax maa ngi doon a doon maa ngi door a nekk conseil municipal. Mhm, mais bu def ngeen cent jours ba lu ko tegal. bi ñu defee cent jours ak li ko mhm. tegal ba nii may waxee yow ñun suñu budget jàllagul ñun suñu budget jàllagul ba léegi fi mu toll nii si xayma dajale ñun li nu moom. ak li nu am ci la ñuy toll ndax bu bu ñu umpale nu commune bu bees la ñu yor commune bu bees la ñu yor. Hmm. donc loi euh, yoon daf lay may am nga bu ñu la installé am nga ñetti weer pour ñu voter budget bi après ñetti weer yi sous préfet am na weer pour valider donc ñun ba léegi nii ñun suñu budget génnagul. Hmm. kon li nga xam ne si li ma mën a wax foofu mooy li nga xam ne ah état du Sénégal wax na ko ma seetaan ko ci journaux yi déglu ko si rajo yi. gis ko ci tele yi dañoo waxoon ne quatre-vingt-dix-huit pour cent des travaux pare na. pare na loolu la waxoon. depuis daaw loolu la ñu depuis waxoon. waaye man li ma gëm gis koo Kër Massar sud gi ma dëkk gis ko Kër Massar go ci globalité am bu ñu nee quatre vingt dix pour cent pare na lu ñuy seetaat lay doon. te li si kanam raw li bët bu ñu ba ci ba ndox mi sotti bu baax a baax a baax dinañ xam ba xam quatre-vingt-dix-huit pour cent jamono jooju kon fi dañuy wax ne cent pour cent war naa pare. ndax mm-hmm. inondation euh, nawetu daaw la ñu waxoon quatre pour cent. Mm-hmm. donc dawal nañu un kon fi mu toll war nañu wax ne cent pour cent waaye dama ne la fii ma dëkk fii ma dëkk tey boo demee xool ko da ngay xam ne bu ñu nee quatre-vingt-dix-huit pour cent pare na ay nax la demal Alaji Paate demal Sotorak. demal Kër Masar extension et cetera et cetera et cetera am na lu ñuy def demal Tawféex demal laa li ngeen am na lu ñuy def waaye àggagul dajagul boo nee quatre-vingt-dix pour cent pare na dañuy dañoo war a wóor ne tey bu tawee benn kër du mën a génn ndaw ñu mën na dajaloo ci benn bërëb nga def moins de ay deux deux heures temps trois heures ndox mi mën a dem. Mm-hmm. waaye foo xam ne tey bu tawee lu mu gàtt gàtt gàtt mën na fa def quarante-huit ndox mu mën a dem. Mm-hmm. nga ne quatre-vingt-dix pare na ci daaw. te ren ñëwagul te tey jii bu tawoon tey tey bu foor foor hmm. tey boo demee laa wax booy dugg kër goo mën a dugg ci zone yi ma la wax da ngay xuus kon ñi ngi jéem ñoom ñi ngi def hmm. waaye dañoo war a gën a baral seeni loxo dañu war a gën a gën a gën a gën a baral seeni loxo ndax wax naa ko sànq dëkk ak ndox moom metti hmm. dëkk ndox yombul te comme que yombul te ñoom bu nawet jotee ah, dañuy ñëw structure nekk si état bi yëpp wër biir Kër Massar ñoo la gën a xam ñu ñi dëkk Kër Massar di dund ak ndox mi ñoom les services étatiques yi nekk si état bi ñoo la gën a xam ne nekk Kër Massar kon casquette boobu mën naa ko waxee waaye si casquette conseil municipal bii mooy suñu première nawet duggaguñu si bu baax a baax. waa c'est vrai que maire yi amul trop moyens yi ngir xeex inondation mm-hmm. mais. est-ce que jéem ngeen teg ay jéego yéen ñi nekk ci mairie bi ngir jàppale askan bi soulager leen. waaw jéem nañu teg ay jéego ndax monsieur le maire moo ko nuyu au am na benn video bu mu def boo xam ni mi ngi wër muy muy sensibiliser doomi Kër Massar yi benn ba aussi tamit am na si zone yoo xam ni euh, sox dëgg yàlla ma ngi koy curé ànd ak ñi muy àndal waaye tey yaa ko waxee boobu ne am na loo xam ni mën nañu ko waaye am nañ loo xam mënuñu ko ñun li nu mënul. moo gën a moo néew torop torop torop torop par rapport ak état li mu man gis nga ndox collectivité local bu mu mën a doon la nga man mooy massawu say population ànd ak ñoom ndox yi si biir kër gi nga ngeen génneel leen ko drainer ndox mi ba mu mën a dem waaye gros travail bi état moo ko man parce que am na yoo xam tey bu ko état defee gros œuvre euh, euh, œuvre yi bu ko état defee tey maire bu ñëwee day yomb mm-hmm. ndax tey bu état yi tey canalisation yu mag ñu ne ah lii kat mooy ligne principal bi te bu fekkee à cinquante mètres à cent mètres à deux cent mètres ndox am na fa maire mën a wut moto pompe. Mhm. branché ko ñu branché canal ba mu dem. Mhm. waaye tey tey gros offre bu amul tey nga war a jëlee exemple tey terrain enseignant wër ko yóbbu ba forêt ba ñaata kilomètres la. te rawatina si commune buy door a door commune boo xam ne dafa bees tàq doom ji door a juddu la. Mhm. nàmp la toll. dogguma la mbay mais for naa ci wewu bay nii maire ba dafa ne askan wi comme ñi ngi ci jëmm ci eh, hivernage. Mhm. ñi nga xam ne fu ñu dëkk day inonde dañu jël seeni bagage teel koo rawale. Mhm. waa xam nga olo olof day fa wax naan ku ndóobin rey sa maam. <laughs> boo gisee lu ñuul. xam nga dañoo dund ay inondation dund nañ ko benn ñaar ñett ñeent. Mhm. lu ëpp fukki inondation dund nañ ko. xam nañ li inondation méttee xam nañ li si nit ñi di ñàkk seeni bagage bu ñu paree li ñuy defaraat comme que nag mi ngi ñëw te ñun amugul moyen sunu mairie amugul moyen sunu mairie amugul dara bañ na ko local ba ñu nekk dañ ko luye ñun dañoo luye local local bi sax li nekk sunu commune beneen commune sax lañ ko luye waaw mais est-ce que solution non mooy mooy génn seen kër yi tamit dani man si li ma dégg dani nanu jël xeer yi baax mën a aj lal yi aj armoire yi bu ko defee <laughs> la nga xam ne moom mairie mën na ko la nga xam ne mairie mën na ko si li mu wax la nga xam ne mairie mën na ko si wut ay moto pompe ba nit ñi awal ñuy moto pompe ba yenn structure yi nekk si biir réew mi jox ñuy moto pompe su boobaa ñu jël loolu ak lii fi nekk ak appui état su boobaa ñu soulager nit ñi waaye comme que nag amugunu mm-hmm. ndax ku amugul budget ku amagul cent franc yoo jëndee big. waaw mais amagul budget waaye am na am na loo xam ne yow fekk nga ko foofu. non xamuñu liñ fi fekk ñun. te doon na ko ci Kër Massar ay bor la. booy neen. ay bor lañu doon lañu doon Kër Massar. je pense bien moom mais moom mooy commune bu mag la woon commune bu mag la woon commune bu mag bi ñu xaaj ko en deux muy Kër Massar noor muy Kër Massar sud ñun li nga xam ne jox nañu ñu ko. te nga xam ne ay bor la toll na si moins de quatre-vingts millions yoo xam ne ñun dañu koo war a fay ñun lool lool lool do ndono googu ndono gu nuy fay la waa jox <laughs> ñu ndono goo xam ne dañ na la dama jënd si bic ba dama jënd si cahier baa dama jënd si créyon baa ngi jënd ci loo xam ne da nga mën a liggéey pour commune bi danoo jox loo xam dañ nañu yéen kat lii dangeen koo war a fay amaguñu nag. ndax bi ci génn mbaa yéen budget bu ñëwee doo leen ko fayee bari toog. ah en tout cas li wétu wër wétu wër mooy dina jëm suñ kéemtalaay kattan ndax commune bu bees la dañuy door a toog wax naa la ko sànq. Mhm. budget bi voté guñu ko. li nga xam ne moo tax a jóg équipe ba fa nekk mooy bien-être population Kër Massar Sud. Mhm. lépp loo xam ne mën nañ ko ca. lépp loo xam ne xam nañ ko ca lépp loo xam ne mën nañ ko cee def duñ ci xaar ma sàmb duñ ci xaar ma demb ndax ña fa nekk ci commune bi ay buñ juddewul Kër Massar tamit seen enfance seen lépp Kër Massar lañ ko defee ñu am njukkal bu ñu war a delloo Kër Massar kon waru ñoo mën a xaar ma sàmb waruñoo mën a xaar ma demba képp ku ñu war a tàllal loxo képp ku ñu war a seeti dañ la seeti pour que Kër Massar sud gi ñu dëkk doon commune bi gën ci commune rawatina nag ah li olof Ndiaye nee koy wàll yaan sa dëkk daa tëggul te ñun suñu dëkk mooy cité Aynou Mady rawatina ay numaat gi nga xam ni mhm. fa la nekk boo xam ne moo doon bañ na ko sax bu njëkk dañ doon ni Paris mhm. boo nee maa ngi dem Koumassan ñoo non non maa ngi dem Paris parce que foofu ay numaat moo fa nekkoon mhm. euh, ay Koumassan village buun daaru misel men foo foo ci dem rek coono nga fa nekk suñu objectif ñun mooy fexe ba coon goo population dootu ñu ko dund bëgg naa nga tontu ma léegi en tant que président mouvement sàmm sa gox maire loolu mu proposé ndax jàpp nga ni loolu solution waaw xam nga. toj leen toj leen seen fauteuil toj leen seen lal toj leen ay xeer xam nga maire li mu proposé. solution la ci kaw jamono jii ñu toll ci côté moom ci côté moom nga xam ne fi toll nii fii mu toll moom jotagul budget validé guñu ko. tuuti ngeen xalaat. fa falaat mooy ma ñëw rek si si côté moom moom li mu wax moom solution la loolu ci moom. waaye man ci li ma xam ci li ma gëm solution bi kenn kenn rek moo ko mën mooy état central état du Sénégal tey suñu bëggoon ne ndox du taa ay numaa ay numaa di deux ndox du fa taa ndax les moyens ma nga fa xam nga euh, fi naqaree defar mooy foo xam ne tey jii amagul dara mais ñun am na lu ñu jege ñaata basin moo ñu jege yoo xam ne pour ndoxu taw mi la tey ñi ñu daan bokkal ndoxu taw mi ñu daan sotti si terrain bu mag bi ci lycée bi ñoo ñëpp defaral nañ leen cité santé boo demee defaral nañ ko Dar Rahman euh, Kër Aldo defaral nañ ko mi ngi ñëw si bassin ay numaadi bi moonte ay numaadi la nekk boo demee santé noor bassin bu mag moo fa nekk donc zone boobu yëpp daan am ndox te sapeurs yi daan fa def dispositif daan ko indi ci terrain bi ay numaa de ay numaa de enseignant rek a fa amagul mm-hmm. te foofu nee naa la déjà am na drainage bu fa nekk kon dagg ko mu dem ci bassin yi bassin yi di yóbbu foore ba état central bu ko neexoon suba mu suba ndox du fa taa kon ma moo tax ma gëm ne. si mm. problème bii ñu dund problème bii ñu nekk état central moo ko man maire boo xam day dooru juddu ñu fii ñu toll nii. Mm. su ko bëggee def tamit xanaa du ren déwén mën naa am. ba après déwén waaye fii ñu toll nii nii nii nii waaw mais kon population bi naka la ñuy def parce que déjà ANACIM annoncé na euh, début d'hivernage précoce ak taw yoo xam ne dina métti te dégâts yi dina gën a bëri xam nga population bi ni ñuy war a def rek lañ def mooy jooytu ko fañ ko war a jooytoo autorité Kër Massar yi ñi ci ëpp du ma ne ñëpp nag ñi ci ëpp mm-hmm. seeti nañ leen wax nañ leen les autorités étatiques xam nañu problème bi ñuy dund def nañ fi confrant point de presse bu am solo ay kilifa si réew mi jot nañu ko ay kilifa yu placé ci biir réew mi jot nañu ko kon ñoom seen bopp ñun li ñuy dund. Mhm. ñoom lañ ko mën a jooytu ñoom nañu xalaat ne tey bu fekkoon ñoom seen buntu kër ñoo ami ndox ñu war a xuus dugg ci biir ndox mi dugg seen biir kër ñu war a fekk la armoire yu ñu tooj. lal yu ñu tóoj war faa teg añ baa amuñu jotu mën a taal añ nañu xool métti woowu ñoom bu doon ñoom nan lañ koy dundee ñu xalaat ne ñun ci métti boobu la dund pour ñu faa saafaraal ñu ko. Mhm. justement point de presse boobu ba ngeen ko defee ba pare ndax am ngeen ay tontu ndax peut-être am na autorité yoo xam ne réagir nañ taxaw pour jàppale commune bu Kër Massar Sud. waaw xam nga du ma ni commune de Kër Massar Sud waaye ñun point de presse bi ñu koy def mouvement sàmm sa gox la. Mhm. mouvement Sàmm si Gox bi bi ñu ko defee am nañu ay retour am na ay kilifa yu ñu woo. Mm-hmm. am na ay kilifa de mu xam nga comme que dañ ñoo woo wax te dara sotteegut damay bañ a wax li olof naan paaka kenn du ko jiit si mbaram li wéttu wër mooy bis bu ñu defee bis bu ñu defee la nga xam ne tey ji ñoom laa fi teewal wax naa ko benn kilifa bu ñu dëkkal buy dund ci ndox mii ñuy dund bokk ci réew mi daa bokk ci réew mi man ko bis bu sant jotee bis bu wax diw def na fi jotee képp ku ci dugal loxoom képp ku ci def danañ taxaw ne diw ak diw def na ci waaye fi mu toll nii ñooñu wax dañ leen lancé waat appel ne leen ñëw ngeen fa yónnee ngeen fa gis ngeen la dund su ngeen gaawul mu ñaaw su ngeen gaawul mu ñaaw kon buñ doon dox doxinu naat nanu fexe dox doxinu gëléem baa buñ doon dox doxinu car rapide nanu daw nu teer balaa làmbaay gën a ñaaw ndax gis nañ tey nu ndox mi wàcc na te fee ñu nekk tey bu mu la wanoon image yu daaw bi baa mu wan la tey nga dem gis la fa nekk da nga xam ne bu tawee benn taw la fa dëkk yëpp yëpp yëpp yëpp dañuy génn daaw daaw am na suñu dëkkandoo bu fa wàññeeku pompe la doon def électrique la yoroon ndax ndox mi sonal na ko lool lool lool lool lool muy pompe mu génn këram suñu borom daf la mu def mu jaar mu mujjee bakkanam benn ba mooy. alentour ba foofu yëpp tey mhm. amul koo xam ne sa kër mën nga def karant euh, un mois te doo vider sa fosse ñaari yoon ba ñett yoon. Mhm. te la lenn waralu ko mooy ndox ma te am na fu mu jaar. napp bi day yéeg day te am na fu mu jaar te ndox boo amee fu mu jaar rek dem ñun bu fekkoon dañ ne ñun amul fu ndox mi mën a dem ba ndox mi amul fu mu jaar mën a dem mais fa mu fa mu mën a dem am na fa fa mu war a jaar dañu koo fatt ñoo ko fatt ña doon liggéey euh, canalisation la. nañ ñoo fàttali ñeen ñu ko dugal ñu si fi ñu mën a ndam ñu ñu solaas yow hmm. mais yéen léegi tey bu euh, taw bi ñëwoon euh, Kër Massar inondé gisoo leen autorité bu réagir lan ngeen fas yéene def waa sàmm sa gox. li ñu fas yéene def mooy ñu ma sàmm xaaruñu ma dem actuellement ni ma wax tey am na suñu benn pap bu ñu dëkkal ma ko nuyu au passage Pape Moustapha Dakar naaf la nekkoon plongeur la bërki démb dafa plongé si biir dafa dugg ci biir caniveau yi. ban caniveau. bu bees bi waa Azuru defar noonu. xaar moom la image yi yi waa defar dafa dugg di ko curé te mag la te daaw daaw jéeg chaque année pratiquement quatre ans ou cinq ans ngi nii heure bu ndox amee day dugg si biir caniveau ak ñu ndox miy baree foofu di ko curé kon ñun xaar ñu ma sàmba xaar ñu ma dem fan yi passé xaar ñu état du Sénégal xaar ñu collectivité locale xaar ñu kenn population ba ñoo ànd nettoyé ko terrain ba bam mucc ayib ndax foofu si jamono jardin lañ ko tuddee woon ngel yi daan am conférence yi daan am fu lépp fa lañ ko daan defee te loolu mën nañ ko faa defee te loolu mooy sunu objectif récupérer sunu terrain defar ko ba ñu am euh, espace boo xam ni loo fa bëgg a def mën nga ko faa def man def parce que ñun suñu cadre de vie duna ko sàggane duñu ko fowe duñu ko wanteer ndax suñuy wayjur danoo liggéey ay at investir foofa ay nu maa di cité dortoir lañ ko tuddee woon ndax Kër Massar bi muy Kër Massar y avait Kër Moussa village. Mhm. Kër Bakka. Mhm. Daaru Misel Medina Kel Buun. Mhm. Alaaji Paate ay nu maadi moo ñëw muy cité enseignant Dakar man police Sonacos sante ñu tuddee woon leen cité dortoir cité dortoir boobu nag moo law ba tey Kër Masaar ñëpp société yëpp am ñoo am fa cité comme suñ papa dañoo ñàkk daan seen doole ñun dem nañ ba sol seeni dàll mu jot nu tey ñun ñoo cadre bi dëkk ba ñun ñoo ko yor moo tax état ñëw état ñàkk ñëw. Mm-hmm. dinañ ci dox dinañ si wax dinañ ci jëf te li ñuy def li ñuy wax li ñuy def état la war ndax yëppam la ndax moo ëmb lépp moo yor ñëpp moo uuf ñëpp. beneen ma nag ah comme ñoom am na biisu bu ñu fa defar xanaa du ñu seetaan biisu bu mel noonu di lor ay doomu adama ndax defar ay ni biisu bu am solo autopont bu am solo nit ñi mën a dem. nit ñi mën a dikk waaye mm-hmm. autopont boobu tamit tax ay nit jël jël seen i kër génn ko gàddaay dem mm-hmm. xanaa ñoom ñu defa autopont boobu investir ay milliards mm-hmm. te lañu ñu investir si autopont ba du ñu investir lu toll noonu ba lu minimum loolu te ndox ma demul ndox ma demul muy niil muy niil ah bu nu bëggee seetaan amul problème si réew mi lan bokk xam na la ñuy def te xam nañ fa ñu jëm nit ki boo soxlaa mu seetaan la bis bu soxlaa nga fayu rek Mhm. Euh, justement autopont boobu tey euh, fa mu jaar euh, gis nañ ni ci croisement bi rond bi anarchie bi nga xam ne moom moo fa amoon ak marchand ambulant yi ñi nga xam ne dañuy ñëw fu leen neex toog pëccëxoo boobu ñu nemmeekoon foofu tey ak autopont bi gis nañ ni marchand yi fu ne la ñu lal léegi dugg nañ ci bi cité enseignant yi nekkatuñu ci marché bi kese tey mairie bi lan la prévoir ci fànn boobu waaw fànn boobu moom maire limu war a def def na ko ndax ñun yónnee nañu papier bu maire wane ne si mouvement Sàmm Sa Gox bi. Mm-hmm. boo xam ne maire lépp loo jëm si occupation anarchique da koo interdit lépp lu jëm si occupation anarchique yi. mais interdit ko taxul ñu jëfe ko fa laa jëm da koo interdit maire yoru police yoru gendarmerie yoru sécurité. ñi yor police yor gendarmerie ñoo mën a accompagner maire ba loolu mu bëgg mu mën a dem ndax euh, boo xoolee Kër Massar Carrefour la ñii jaar Kër Massar di dem ñàgg ñàkkorob euh, jëmbal sàngalkam ñii jaar dem Tiwaawoon Pël ñii jaar dem euh, Jaxaay ñii wiiri ñëw pour dem Malika Carrefour la ku ne nga fay gis ku ne fa ne tey boo doon xool tey jii ni Kër Massar dëkkin dëkkinu Kër Massar exemple bi ma la jox rek mooy sa corona bi xoolal bi ñu tëjee Kër masaar ñu ni commerce dootu fa am nu la neex ngay demee nu la neex ngay dikkee ñu ak jaaykat yi ñoo dëkk waaye dafa am na loo xam ne tamit ñun ñoo ko moom. Hmm. suñu cadre de vie la ndax nit ki ci xel mu sell munoo bàyyi sa kër say doom say rakk say njaboot di dund dund gu neex nga ni loolu dinaa ko xañ ay doomu aadama day gis ñoo xam ni Kër Masar rek ngay dem commerce vingt quatre heures sur vingt quatre heures amul fenn Sénégal demal station Kër Masar nga toog fa vingt quatre heures sur vingt quatre heures ma ngay lépp a ngay dox donc léegi tey comme que maire li mu waroon def def na ko ndax am na si commune yu baree baree bari maire yi ñoom ñooy tax loola am ndax bëggu koppar ndax bu fekkee da bëgg a def développer sa commune ci base ko si ay recette yi si marché yi. juuteeg patante ak nangam ak nangam sa commune du dem. maire nag sunu maire nag bëggul loolu moo tax fa teel def arrêté lëkkay euh, force de l'ordre yi nga xam ne ñoo sécurité muy gendarmerie muy police ak préfet mi leen yilif nañu accompagner même le préfet tey am na décrépissement bu mu fa defoon bu am solo boo xam tey boo jëlee deux voies yi alentour yi gis nga dañ loolu nag nañ ko continuer nañ accompagner maire te xam ne Sénégal cadre de vie bi ñu war a am yenn réew yi am ko ay nit dong ñoo ko fa def ñun war nañ koo mën a am tey war nañu mën tey suñ papa boo xam tey dem na liggéey na jox dooleem Sénégal toog ba yenn at yi mu war a dox ndànk yorub kaanam ànd kub sëtam di doxantu dund eer bu neex war ñu ko ko mën a xañ tey te li ci gën a doy waar mooy ñun bañu ko jaay mm-hmm. mais insécurité ba jaay ba am benn da nga gis koo xam tey day tegu palaatam occupé lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt benn cinq mètres carré cinq carré boo xoolee lam fa teg soo ko calculer matul mille francs yow yaa ngi xañ ñaata oto tey ñoo war a déplacé war a dem nga teg ko ci kaw digg ci kaw tali bi donc yooyu yëpp tey bu ñu fekkoon tey dañ ñoon maire tey ah defu ci acte boobaa mën nañu wax waaye desul dafa poser act ne ah lépp loo jëm si daa xam daa jëm si encombrement jëm si occupation anarchique na jóge Kër Massar Sud la ci des nag mooy dañu appeler autorités yi nga xam ne ñoo yor sécurité ñu accompagner ko ci loola. Mhm. wax nga euh, maire signé na arrêté bi ngir euh, occupation anarchique bi jeex euh, jaaykat yi jóge ci mbedd yi jóge ci cité yi yéen dafa mel ni yéen ci tànku mairie bi fi nekkoon ngeen di dox. bu ñu doon dox ci tànk maire bi fi nekkoon. maire du signé arrêté non si parce que signé na ko certes mhm. mais respecté wuñu ko. waaw moom laa la wax xam nga maire li man ne nangam bi bu mu am. suivi suivi bi ñan ñoo ko laa la wax police ak gendarmerie tey bu defee nang bind na arrêté bii du am préfet approuvé ko tey ji préfet bu joxee ndigal euh, parce que secteur bi ñu nekk préfet sous préfet moo leen géré ak après le préfet du département tey jox leen ndigal ne ah occupation anarchique yi kat. ànd ak les agents maires yi lii di nga fi bëgg mu jóge fi dana fi jóge mm. mais tey ak maire bu mu mën a doon boo signé arrêté nga àndoog force de l'ordre nga bëgg fekk ab taable ay table ñu tegee nga ne dama leen fay jëlee xeex dana fa bari te bu gendarmerie taxawee ba police taxawee xeex du am te dana dem. léegi lu tax gendarmerie police taxawul. non waxuma taxawuñu dama ni nañu accompagner euh, accompagner maire ci arrêté bi mu def mais def na arrêté ñun wan nañu ko mooy. Mm-hmm. service de l'ordre yi nga xam ne tey jii ñoo mën a accompagner municipalité bi ngir ànd occupation anarchique yoobu mën a dem nañu accompagner accompagner mairie bu nu ko defee rek dëkk bi alhamdulilahi rabil alamin te Kër Massar fu neex dund la mm-hmm. c'est vrai li nga wax dëgg la parce que état moo yor euh, sécurité population bi mm. euh, mais tey maire bi euh, moom bu ñu demee ba teg ko fi c'est parce que askan wi dañoo am yaakaar si moom mu bañ a répété erreur yi nga xam ne mairie bi fi nekkoon moom loolu doon def mais jamono ji dafa ni jëfeewu ko waaw moom laa xam nga fii ñu toll nii maire bi fi nekk ak maire bi fi jóge tey mënu ko ñoo wax ne mi ngi répété ay erreur ndax booy wax waxu loo xam ne tey buñ ñee loo mën nga see dut baaraam nga ni waaw. Hmm. dama la biñ biñ ñu. fa mais bu naree neex su su baxee xeeñ xam nga bax mooy. <laughs> waaw bax mais tey bu dee koo yëkkati <laughs> boo dee boo euh, boo wanee ginnaaw mu ñëwaat toog. ñëpp ñëpp gis nañ ne ñëpp gis nañ ne maire mi ngi ci population bi mi ngi wax ak gëlëgëlë yi mi ngi wax ak marchand yi. mi ngi wax ak mi ngi wax ak mi ngi wax ak lépp pour cadre de vie Kër Massar Sud amélioré wu. mais wax ji daa war a ànd ak action. action yi nag la koy mën a accompagner ak euh, gunge mooy force de force de défense et de sécurité yi nga xam ni tey ñoo yor kaaraange réew mi dafa am loo xam maire moom la moom am loo xam ne ñee ñoo ko moom li maire moom mooy def naa arrêté am naa samay agent lii waru fee am. ñii ñoo ko war a accompagner ngir lii maanaam ndax damay exemple benn rek. Hmm. tey man su ma yoroon table ma xëy xëy xëy gis waa maire yi ñëw ne dañ ma fay jëlee dañ may reer waaye du ma fa jóge waaye bu ab ma taxawee baa ab policier taxaw fee dama naan ñokkete dem benn ba mooy tey boo ko doon fourrière mais bagage jàmm tey boobu mën ko ko fourrière mais boo am xam tey euh, nit ki ñëw teg toog mu dem police ñëw na gendarmerie dem na hmm. mu demaat mu dellusiwaat tey bu ñëwaatee tey boo ko doon fourrière exemple tey hmm. mu eh, mu teg mango baa banaana baa lu mu a jaay hmm. tey bu police ba gendarmerie ñëwut doo ko mën a fourrière ndax coow lay jur mooy mooy li ma wax mooy hmm. mairie bëri la ñu def ñoom la su doyoon population bi population bi daan leen fi bàyyi ndax ñoo yor nguur waaye dañoo doyul population ba tax population bi jële leen fi ñun ñii nag équipe municipale bii door a ñëw li nga xam ne maire teg na ko comme jéego bu njëkk mooy interdit na occupation anarchique ci Kër Massar Sud. dañ koy rafetlu tey ñaan ñi ko war a ba loolu war a am ba du am ñu gunge ko. est-ce que sàkku nañ ko sàkku ngeen ko ci ñooñu war ko accompagner pour ñoo gunge ko. waaw loo xam nga déjà maire moom bu defee arrêté service ñu war a jaar au niveau étatique yëpp ndax maire démembrement de l'État la. Mhm. ñun état moo jël ci dooleem jël ci prérogative nañu am lii maa leen ko dénk doxal leen ko kon bu defee arrêté fépp foo xam ne war na faa àgg àgg na ko fa la ca des nag ñoom ñoom ñoo xool seen emploi du tax ak seen programme lan la ñuy fexe ba arrêté bii maire def mu mën a jàll ñu mën koo exécuter. Mhm. mais tey pour régler loolu ndax jàppoon ni tey parce que Kër Massar ñi fay jaay dafa bëri. Mhm. Euh, daanaka sax mën naa wax ne jaaykat ñee ëpp ñi nga xam ne jaayuñu. jotul ñu defar la léegi c'est benn marché boo xam ne dinañu fi mën a caser xam nga Kër Massar daf euh, ña fay di commerce bi moo dox mhm. yaa ngi sax ñu jóge ay Caaroy Pikine Géejawaay damay romb ne damay romb naan Rufisque ñëw Kër Massar Kër Massar mooy dëkk boo xam ni jaaykat yi ñoo ëpp jëndkat yi voilà Kër Massar lañ fay jaay jaaykat yi ëpp jëndkat yi te ñu ci bëri dëkkuñu fa ñu ci quatre-vingt-dix-neuf pour cent des commerçants mhm. boo doon def micro demal laaj leen fu ngeen dëkk baa bu ngeen paree fu ngeen yeewoo. baa baa amal équipe bu doy nga topp groupe par groupe. Hmm. gis nga am na si ñoo xam ni dañuy bàyyi ba quatre heures jot. fi mu toll nii nii may waxee yow nii taal nañ jël nañ seeni bagage jubali Kër Massar parce que lenn warlu ko mooy Carrefour la ñooy jaar Kër masaar kenn exemple rek da nga jël transport bi. Hmm. dem bu vingt euh, bu zéro heure jotee jëm une heure du matin demal garage Ndiaga Ndiaye lii gaare Njaga Njaay Kër Masaar amul fenn Sénégal fu muy gaare te balaa huit heures dootoo fa fekk benn Njaga Njaay mhm. kon mu won la ni mu lay xëy ci Kër Masaar kenn xamu nu mu toll loolu na jaaykat yi xam nag ne kaa ku nekk bu ngoon jotee rek ku nekk day daal di dem mhm. benn ba mooy li war a tax sax service de l'ordre yi fexe ba loolu mën a deñ mooy boo xoolee ni ñu nekkee ci kaw tali yi des fois ay xale yoo xam ni euh, du ñu am ay moyens de un an mhm. ay trois mois ay màgget ñoo xam ni dañuy wóor na ñëwati jëye mën na faa am yoo xam bu ñaanu ñu ko yàlla su amee nopp dar xaw ma nu ko olof di mu mu loolu rek war naa tax ñu accompagner lii maire de mhm. loolu rek mais yéen euh, lu tax yéen euh, ngeen di nangu ñiy dëkk yeneen euh, localité yi di ñëw di encombrer Kër Massar waaw xam nga dafa am loo xam ne moom la nu moom am lu nu bokk am lu nu doonul dara Kër Massar duñu faa dëkk ñu am fa suñu cent cinquante mètres carrés ku ne am fa sa cent cinquante mètres carrés ñun suñu boolee suñu cent cinquante mètres carrés mu baree bari moo jur cité ay nu maat nga dem kër Bakka dem kër alam kër Massar village keneen ak keneen ñun fi nga xam ni moom la ñu moom muy sunu cité am nañ droit defar ko am nañ droit taxaw ko mais dafa am loo xam ne état central moo ko moom li état central moom. non dama bëgg nga tontu en tant que euh, conseiller municipal. waaw moom laa la xam nga en tant que conseil municipal. ngir bañ ñeneen ñu jóge seeni commune. voilà ñëw di encombrer suñu commune loolu moo tax maire génn arrêté na ñooñu nga xam ni bokkuñu suñu commune ngir yàlla bàyyi leen suñu commune ñu man koo defar la loolu nag ngir mu mën a am euh, service de l'ordre ñooñu mën a accompagner. xam nga tey bu fekk woon bu fekkoon dama ne la su sunu sunu maire kat jéemul si dara su boobaa ñu waaye nga xam ki def arrêté ne lii bu fi kenn tegati taabul bii bu fi kenn di defati lii bu fi kenn di defati lii. Mhm. tey jii xam tey euh, euh, euh, sa sa sa sa sa fooy fooy bii nga yor. Mhm. tey su ma bëggoon ne bindal ma yoro bi yoro fooy fooy bind. tey mën nañ ne arrêté baa ngi nii maire moo def arrêté bi mooy occupation bu mu fi amati moom kay ñi ko war a accompagner ba loolu war fa bañ amati. ñoom ñoo ci des waaye ko du loolu kay liñ ci war def def nañ ko. bañuñu ku jóge feneen ñëw Kër Massar Sud bañuñu ko de waaye jaay sa jaayukaay ba am na foo xam ne pour jaay la marché baa nga fa mais nañu dem sa marché ba te bàyyi territoire bi nit ñi mën a dem oto yi mën a daw nit ñi bëgg dox mën a dox tey ab heure bi heure bi tey boo demee Kër Masar ak diggante lu moins de cinquante mètres. Mhm. da nga fa def lu mu gàtt gàtt dix minutes. moins de cinquante mètres mbëkkante réel réel réel réel da nga fa def moins de dix minutes tax mhm. te lii ma la wax fexeel jour nga dem Kër Masar nga xool la mais lëkku maire bi mën a def nag mooy defar arrêté jox ko ñi ko war a jox. ngir yàlla ñi ko ñi ko xam ne jox nañ leen ko te ñu yor défense et sécurité. Mhm. nañu ñëw ak accompagner ñu si xaalis. zone commune wutul xaalis xam suñ ko luy wut mhm. mooy suñu population dund dund gu neex dund gu teey bakkan suñu papa yi mën a doxantu nu mu leen neexee sécurité totale am fa ndax mhm. am na heure yoo xam ñi ma koo génn mhm. Kër Massar bëccëgu dara kàmm gis nañ fa bal tul suñu chef de quartier moo ko nuyu au passage euh, tonton Senghor mu jëf-jëf ju am solo si commune bi si si quartier ba woo gendarmerie laata gendarmerie wëri bay ñëw ñee dem nañ te bal bëccëgu dara kàmm tiire bal tiire ay ba ci Goundare kam Kër Massar rek la xew. Kër Massar la xew Kër Massar ngay toog léegi gis bokaa boo xam da nga naan déedéet mais comme ko nag ki nga xam ni moo war a seetu dëkk ba war a defar dëkk ba ak équipe am bind nañ ab arrêté ne lii kat bëggatuñu mu am ngal la waaye ña nga xam ne ñoo ko war a accompagner ba loolu du am ñu def ko. Mhm. à part arrêté bi mu signé maire maire. Mhm. Euh, pour euh, interdire l' occupation anarchique euh, ban jéego la teg. waa jéego bi mu teg moom nee naa la gis nga vidéo yi moom law na Kër Massar ñëpp gis nañu. vidéo guddi bëccëg ay vidéo ay ay ay vidéo yoo xam nit ñi koy filmer di ko dugal ngir moo day wàcc si le terrain di wax ak nit ñi fii du place fii waru leen fee teg fii nangam fii nangam mais encore une fois su ko doon def ba àdduna yu tukki te àndu teg service de l'ordre yi dara du saafaraw déedéet ndax euh, Sénégal li naan xale xamul yàlla waaye xam na yar Sénégal doon na président de la république nga ñëw taxaw soo ànd ak policier ànd ak gendarme dañaan oh waaye kii waaye waaye kaay jaar fële. d'accord ñu ñëw ci mouvement sàmm sa gox euh, yéen daa mel ni inondation yi moo leen gën a soxal parce que point de presse bi. Euh, wax ngeen ci inondation mais wax ngeen ci yeneen yi mais côté euh, sécurité bi parce que gis naa yenn quartier yi dañoo jël seen bopp sax ay gardien pour ñu n'empêche euh, am na ñoo xam ne ñu ngi xëy 6 heures du matin ñu leen di agressé yeneen ak yeneen yéen seen taxawaay côté sécurité bi waaw sàmm sa gox moom bien-être population ay numaa di un ay numaa di muy santé ak Dakar Marine ak lu ay numaa dans sa globalité moo ko tax a jóg amul benn pàcc amul benn fànn mhm. lu nuy bàyyi dañoo xam nga mbir boo ko bëggee lijjanti li na këtti na jonn da koy régler jublu si leneen tey problème sécurité boobu nga wax def wut nañu ay làmp def ko si yenn côté ndax gaa ma fa am kilifa gu ñuy wax naan suñ benn euh, sénateur bari dañ naan defkat fuleer lay bañ kii def te def tax koo jóg bu amee fu leer du def ndax day ragal mooy am na si secteur yoo xam ne suñ doolee bariwul suñu moyen bariwul waaye ña ngay ña ngay defi làmp benn ba mooy suñu ndaw yi koñ guddee bëccëg subaa ngoon dañuy veillé démb rek démb démb démb démb terrain ba nga xam tey mooy terrain central nga xam ni euh, ndox mi fa lay wàcc am na suñ benn euh, ku fa yor école daa fa fekk ay jaaykat dëpp moo taxaw ne leen jaay sa njaay sa marché ba mooy lépp lu jëm si sécurité. Hmm. lépp lu jëm si environnement. lépp lu jëm si cadre de vie. lépp lu jëm si bien-être amul lenn loo xam ne sàmm sa gox dana ko bàyyi. Hmm. ndax dama ne la suñuy papa ñoo liggéey leb banque jëndi terrain tabax banque topp leen ñu sonn ca lool ba fay ba retraite nii lu nu yàqal cité bi du ko seetaan. lépp lu luñ si war a def ndax damay far di wax naan boo solee sa dàllu baay mu jot la la sa baay daan def soo ko defee wàccoo da ngay xool la sa baay daan def nga def lu ko raw ci ñu foofu lañ teg suñu tàgg comme que suñuy papa ñooñu kër yaa nga fa am na si ñoo xam ñu ngi si biir sàmm sa gox yi am nañ feneen i màkkan mm-hmm. mais amul bi ñu am si ay numaat yi amour bi ñu am si kër Masaar moo tax fu ñu mën a nekk fu ñu woote ñëpp di ñëw taxaw ndax suñu papa yaa nga fa sunu yaay yaa nga fa sunu bàjjan yaa nga fa sunu maam yaa nga fa sunu famille ñoo nekk foofa te lu leen xañ cadre de vie bu normal du na ko seetaan moo tax si secteur yëpp secteur boo mën a dem ndax sunuy biir kilifa gu nekk suñu biir te boo ñëwee sàmm sa gox bi. Mhm. kilifa gu ne mu ngi si biir sàmm sa gox bi. moo tax amul dara lu ni bàyyi secteur boo jàpp na tey jii a ah, nit war na ko am ngir dëkkam mën a dox dëkkuwaayam mën a rafet mën a neex ña nga ca biir. lan mooy seeni projet. Euh, benn fi ñu nii bu ñu xeexee ba sunu borom dimbali ñu ba ndox mi am fu mu dem nga xam ne ndox mi ndax am na yenn yoo xam soo ko bëggee def ndox mën nañu yàqu ko exemple terrain boobu ma la wax. Mm-hmm. li mu fa bëgg mooy delloo ko place publique ba mu nekkoon te jël ay numaadi ba ay numaadi daj benn terrain basket dafa nekk ñaata espace ñoo am ay numaadi avec ministre de la jeunesse ministre sport ah jàpp nañ ne suñ demee waxtaan ak ñoom. war dañ fa mën a may terrain basket tey jii espace yu xale yi mën a foowee amu fa tey jii autopont bi ah gis nañ yu mu defar si yenn secteurs yi mais diggante fi point bi nekk ak terrain bi tey war nañ fa mën a def ay jeux yoo xam ne sunu doom yi su raxee war nañ mën a dem féexal seen xol sunu yaay yi sunu bàjjen yi sunu mag yi bàyyi yenn activités yi religieux yi am mais mën nañ koo def foofu nga xam ne tey terrain yi daan ak euh, euh, baare du am ñun avantage bi ñu am ay numaat yi mooy Aynou Mady rek moo am mooy cité boo xam ni li mu am si espace de jeu amul fenn lotissement Sénégal loolu nag bu nu ko sàgganeel te li nu koy sàgganeel mooy ndox mi rek te ndox mi ñun mënuñu. Mhm. état central moo man état central bi man na nga xam ne ñu ñun ay doomam ma lañu defuluma ma dem ba ñi mu defal daa bokk ci ñoom te day mel ne biir palais. Mhm. ñu ni néeg bii baa bureau bi le président ne. Oh. yeneen bureau ya ay nit ñoo fa nekk kon bureau président bu jagee te yeneen bureau yo sa des jagul bépp ay xajam waaye yenn bureau yi boo xoolee setee te bureau président xajam palais bépp ay sax euh, xajam waaye bu bureau président setee bureau yi sa yëpp ay dañ naan ah palais kat alhamdulilahi rabbil alamin loolu mooy fi ñu dëkk tey pale lu mu rafet rafet rafet rafet bu bu tawee ndox ma daal di dem ba doo fa gis ab gut ñoom nanu xam ne bu nu génnee am na ñuy liggéey foofu ca ñoom ba seen responsable na ñoom ñoo xam ne bu ñu jógee foofa bu ñu ñëwee si ndox mi la ñuy xuus pour dugg seen i kër baa ñu lay jëbe inondation jeex ñu dellu si mhm. loolu nag xanaa nag bu dul ñun sax ñoom ñoo liggéey ñoom ñu war ñoo mën a seetaan bu dul ñun tam seen responsable yañ fa am te di leen di tuddoo xanaa ñu mën a xool ca ñooña mhm. ñoo defaral ñu waaye loolu lépp kay ñoom ñi nga xam ñun sénégalais yi ñun ñun waa Kër Massar Sud ñun waa ay numaadi danoo bokk ci ñu jël suñuy baat jël suñuy moyen ne leen yéen jiital leen doxal leen ñu xanaa loolu war nañu ko mën a delloo defar suñu dëkk mhm. ñu dara suñu cadre de vie lañ bëgg kuñ ko defaral d'accord kon yéen actuellement yéen loo leen di xaar exactement ci gouvernement bi li ñu xaar ci gouvernement bi muy waa ADM muy waa projet ak képp koo xam ministre des collectivités mais projet bi projet bi agseegul nee naa la agsi na waaye dafa àgg seegul ci ñun te buñ bokk nañ si war fi mu waroon a agsi mooy nañu nañu xam ne ay nu maa di ay nu maa bu nu seetaanee taw na tey balaa fin décembre wax naa ko ci point de presse bi président ñëwoon na Kër Massar jël ko jàpp. dafa noonu la ñu ko waxee baa jël gaal. président dina dellu si waat Kër masaar bi yoon bato lay jël. wante waxuma bato de Titanic moo fay jaar. <laughs> parce que bu ma la won vidéo que ndoxu Kër Massar fi ñuy wax nii nii dam na service étatique bi. xam nañ fa Titanic de xam naa kon dootul fekk doomu aadama Kër Massar. wallaahi tey bu nawet jotee dama laaj ñu dëkk sa alentour ba ñaata kër ñooy génn. am na si ñoo xam ne baas la ñuy defal seen kër parce que moyen bu ñu mën a luy ji amul baas la ñuy defal seen kër lii ma lay wax xam nga li ñu naan olof ñu naan tunga ni teew du ñuy nataal demal euh, sapeur pompier bu Rufisque nga xam ne moo yor Kër Massar demal nga laaj leen baa ba baa vidéo daaw yi génn ko nga xool ñun waxuñu lu amul de. vidéo daaw yi kay ku ne teg na ci sa bët. dana wax loo xam ne lii lu ne fàng la te ñoom ñoo si mën dara. léegi nag bu nu seetaanee. ba loolu fajiwut ñun tam dañ leen mën a seetaan ndax boo yëkkatee sab loxo ne seetaan naa leen bis dinañoo yëkkat suñu loxo tam ñu seetaan la te natt woo xam ne da nga ko tegal nit mu teggi ko mu naqari ko bis bu la ko delloo bul mer te ñun ñoom man loo xam ne ñoom mënu luñ ko seen bopp ñun ñoo yor loo xam ne ñoom yoru luñ ko seen bopp te population bu mature lañ bu am doole bu xam fa ñu teg seen tànk te xam lu ñu bëgg. Mm, xaayaan nag xaayaan nag ku dégg séeréer. en tout cas jafe-jafe yi ci Kër Massar je pense que mairie bu ko bu dem ba saafaraal ko ah yow ku ñu war a euh, félicité nga parce que jafe-jafe yi bëri na ci lu ci mel ni inondation lu ci mel ni insécurité bi lu ci mel ni euh, maquette bi maquette bi nga xam ne li muy problème yi indil euh, askan ba yeewoo ci Kër masaar bëri na. Euh, kon daal yéen da nga si boole maquette portable. Mhm. da nga si boole portable. sen Kër Massar la gën a doxe Sénégal bu seen quatre heures jotee. dañ la koy sàcc ba ko. xam nga sàcc ñàkk sàcc loolu moom ñoo xam waaye li ma witti wut te ma xam ko mooy maquette portable Kër masaar la gën a doxee Sénégal bu quatre jotee waa yi dinañ ñëw waa Colobane dinañ ñëw waa Géejawaay dinañ ñëw waa Rufisque dinañ ñëw. waat xoolal fépp fu ko jaaykatu portable nekk man mas naa si wax benn waaye nee na ma grand man damay ñaw ba ngoon jot ma dugg si maquette bi li jënd samay portable ñëw taxaw foofu jaay ko yóbbu dépense nee na ab la day jaay ba ba trois hmm. mu dugg lijjanti ay portable am ci euh, defarkat yi nga xam ni ay ndaba la xam ni ko tuddee mu jënd ñëw taxaw foofu jaay dem am lu mu joxe dépense ci téléphone yi. ci téléphone yi maquette maquette portable moom surtout ñun fi nu dëkkee nga xam ni mooy centre bi moo jege pont bi hmm. wallahi heure bi boo fa demee as bu ne nga fa fekk nag ñoo xam ne fi ñu toll nii dañoo waroon dem jàngi école baa ñu dem jàngi métier am ñoo xam te ji dañoo waroon yor seeni kurus di ñaanal seeni njaboot as bu ne nga fay fekk as bu ne ci góor si jigéen nag ak insécurité bi mu jur yëpp kon ñun nañu dimbali te li si gën a yéem mooy fi nu dëkkee ay école d'excellence moo fa nekk ay école d'excellence laa la wax ñoo nekk foofu ki nga xam ne nag dañ sama cadre de vie rek laa bëgg mu ko defaral jàpp naa ni ah fajal ko ajoom jafewut ah en tout cas xam leen ni askan waa Kër Massar yëpp ñu ngi toog di xaar euh, liggéeyu mairie bi comme nee nga nag ay bor dong ngeen fa hérité ñu ngi xaar ba ñu voté budget bi ñu xool. Euh, bor bor bor bor bari sax. <laughs> te bo te te te bor yi bor yi li li ma ci li ma ci gën a li ma ci gën defaree si bor yi dafa am ASC bu ñu war a fay 5 millions ab ASC ci bor yi. ASC. Hmm. <laughs> mbay mbay heure bi mi ngi jot ñu bàyyi la nga joxe sa mot de la fin mais bor yooyu daal jàppal ni nekkul prétexte. ah ñu ngi leen di xaar daal si liggéey toll nii. prétexte la ndax. jotaguñu yéen a ngi dugg ci cinquième mois ba bi ba léegi. ñu jotee mairie ba léegi. jotagunu xaalis bu tax ñu mën a liggéey ay bor lan jox bu ñu voté budget bi lépp loo xam ni comme ni ñu ko xaymaa la ca war a dem danañ fexe ba mu dem ca mm. ni ma waxoon ci njëlbéen bi rek équipe bi fi nekk ay doomi Kër Massar lañ amee njukkal Kër Massar. ah en tout cas xam nga bien Kër Massar. non bëgg naa nga xam ni eh, eh, population waa Kër Massar am nañ yaakaar torop sax ci yéen te yàlla bu yaakaar tas. alhamdulilah kon nag ñaan googu yàlla bu yaakaar tas waaye ñu tamit ñuy ñaan ci état central yaakaar nañ ci ñoom bu baax a baax a baax a baax te yaakaar gi ñu yaakaar ci ñoom. gëm nañ ne jàpp nañ ne yaakaar nañ ne suñu yaakaar du tas si ñoom bu fekkee nag seetaan nañ ba lu ñu dundoon daaw ñu dundaat ko ren li si kanam raw li bët waaye daal bu nu ko defee ñoom ñoo ko war a def suñu ko deful ñoom ñoo ko war a def kon ñëw def ko day seenub sag ñëw def ko day seenub ndam ndax bu ñu toogee ba suñu mag ñi exemple rek jumaa jafa nekk jumaa jafa nekk bu nawet jotee depuis dix an ngi nii su nawet jotee buñ bu bu ñu nee nawet tàmbali na commencé naa taw ba ni nawet di jeexee kenn du fa julli ajjuma kenn du fa julli ajjuma ndax ndox te booba ndox mi daana am fu mu dem waaye léegi ndox mi daa amatu fu mu dem. kon nañu ne ñëw ndox mi day toog ndox mu toog nag benn taw ñaari taw ñu ni euh, juin ne juillet dugg août septembre mu toog fa nee naa la sànq président buy ñëw du jël gaal bato lay ñëw del <laughs> te te te ño ñi ne ñi ànd ak moom te yor affaire ndox mi ñu si bare bare ay kajoor kajoor la te bu ñu jëlee bato bu ñu amul sens fa la ñuy des. kon nag balaa kenn di fa des nag. mënuñoo féey mënuñoo mënuñoo féey te ndax boobaa ñun ci boobaa danañ tëmb nay mbott ci biir ndox mi nuur nuur nuur nuural bata ba. yàlla bu président ba lab ko. doo président lab ndax xam naa ne dégg te xam naa dana faj suñu aajo ndax demandé ñu dara mooy centaine de milliards yi nga xam ne investir na ko biir Kër Massar. Mhm. mu bañ am na fu mu agsiwul mu bañ a niil ndax liggéey lu yaatoo yaatoo yaatoo. am benn foo xam dañ ko waroon boole ci liggéey ba mhm. te ñu yor liggéey bi xam nañ ne loola da caa bokk mhm. xawma dañ koo fàtte xaw ma dañ faa agseegul ba tax loolu amagul mën na liilal liggéey ba mhm. loolu nag la ñuy bañ voilà quatre-vingt-dix-huit cent daal bu fekkee pare na ah ñun bokkuñ si quatre-vingt-dix-huit te xam naa ni ñooy centre bi ah en tout cas milliards yi ñu fi xëpp yëpp de ren jii waruñu woon euh, waa Kër Masar waruñu ñëwoon souffrir ci ay inondation mbay nga tàggatoo. waaw di la sant di la gërëm euh, di rafetlu émission bi Euh, di wax ne ñun daal lii mooy sunu problème képp koo xam ne jàpp nga ni problème bi sa problème la ba jàpp nga ni problème bi mën nga ci dara ngir population ba fa nekk seen xel mën a dal ñu mën a tëdd mën a yeewu xale yi mën a fowi ñu ngi lay woo nga jàpp leen xaar ñu ma sa seetu ñu suma sàmba seetu ñu suma demba seetu ñu kii fii la bokk seetu ñu kee fa la bokk ñun jàpp nañ ne képp ko bokk Sénégal am nga mbokk Kër Masaar gëñu dëkk noo ngay defaree say mbokk feneen say mbokk yi nekk Kër Masaar ñu ngi si jafe-jafe yu metti ñu ngi tàll loxo ñëpp di santaat di gërëmaat hmm. di ñaana suñu waajur ya ndax combat bi ñu nekk ñoom ñooñ si gën a encouragé ñooñ ci gën a jiital conférence point de presse am na suñu papa dani tey bu daroon joxe bakkan ñu joxe suñu bakkan nga liggéey nag ba retraité war a noppalu ñu seetaan la ba nga nar a joxaat sa bakkan ngir loo xam ne tey jii nit mën na koo def yaakaar naa loolu rek war naa mën a tax ñu seetaan ndax am na kilifa gu mag ci réew mi dafa seetaan loola nee na yaramam daw mu jël vidéo bi am ku mu ko yónnee ku mu ko yónnee xamul ki wax mu fexe ba ñu indi ko fa. Hmm. yaa ngi si doxi jéego nag jéego yooyu nag yàlla na ko suñu borom mottali. barke si naa xamal ñu lay sant di la gërëm yow itam Mbaye Badiane yow yaay président euh, mouvement sàmm sa gox waaye itam conseil municipal ci mairie bu Kër Massar Sur ñu lay sant di la gërëm sa teewluwaay fii euh, si suñu jotaay ndaw ñi di gërëm Bachir Cissé mi fete woon ci technique bi di gërëm ma déglukat bi ñu doon bàyyi xel jamono ji mbokk ñu leen di dajee mercredi bii di ñëw même heure même fréquence même euh, beneen thème ak beneen invité